merci pour ceux qui nous suivront en direct sur la Safina TV aujourd'hui encore nous nous level c'est un réseau des femmes de la Safina FM pour le développement on est là dimanche 21 janvier ici en direct sur la Safina FM Safina TV pour une formation donc la formation c'est quoi c'est sur l'agroalimentaire donc il y a aussi la transformation laitière donc ce que nous allons faire tout à l'heure, sans plus tarder, nous avons essayé de voir la présidente, mais aussi les membres qui s'y figurent pour leur poser des questions et voir leur réactions et comment expliquer le cher public, les spectateurs de la télévision Safina TV pour voir la formation se passera comment. Et cette fois-ci, nous allons tendre le micro à la présidente qui est Madame Salemata. Aujourd'hui, la première question que je vais vous poser, juste, est-ce que pouvez-vous revenir un peu sur l'initiative de la formation, mais aussi sur l'initiative de cette réseau des femmes agroalimentaires. Assalamu alaikum, euh, euh, Manglin Dunuyu Dilen En fait, nous avons fait une formation de trois jours, formation laitière, transformation laitière. Nous avons fait un réseau des femmes pour euh, Safina. Nous lañ leen un lañ ko réseau des femmes Safina avons dañu un réseau femmes yu bari manam groupement yu bari lañu boré fi tay tey boo fi ñëwee différentes groupements mi ngi fi comme dañu gis ne jigéen ñi bëgg nañu liggéey mais buñu amé financement xamuñu lu ñuy liggéey parce que nit boko bëggé financer il faut nga former ko boko ko formé ba mu xam bu joté xaaliss bi amna na lu ko wara a dina mën boko joxé xaaliss dina ko mëna liggéey donc loolu mooy objectif réseau Safina pour le développement féminin bo déggé ñu def formation rek pour ëlëk ci biir soo amé financement formation biñ la jox pour ëlëk ci bi nga mën a soow bi ñu la wan nga defar ko wala meew biñ la wan nga ko def wala fromage bi ñu wan la pour nga defar ko pour ëlëk ci biir boo bëggee def euh, meew wala soow bu la joxee xaalis mun nga ko defaral sa bopp mun nga ko jaay sa financement boobu bu duggee dina la amal njëriñ te du formation bi laitière bi rek la ñu yem am nañ formation lépp tout lépp luy agroalimentaire manam saabu bi euh, transformation euh, laitière euh, fruit yépp incha allah dinañ ko fi def incha pour def formation xam nga ñun jigen dafa neex jappalé parce que bo jappalé jigen jappalé nga société parce que jigéen moy société tay jigéen ngay jappalé dara manké ci kër gi mu génné la sëram daal di koy joxé xalé yi jigéen ñi la ñuy laaj kaye yeeg biki donc so jappalé jigéen rek jàppale nga société motax moy formation bi bi ñuy def moy financement yi wara ñëw nga xamante mom moom wara euh, financer jigéen ñi pour ñu mëna liggé lool loolu moo tax tey ñu jël 3 jours yi nga xamante ne ñu def ko former former leen ñi fi nekk ñëpp ci Dakar lañu joggé amna ñu joggé ci banlieue bi amna ñu joggé fi ba jaxay ak yépp ñi ngi fi dañu dañu ñom dañu ñëw représenter ay groupement groupement bu ne ñi nga xamanteni ay 25 personnes la ñi ay 50 personnes ñi ay 200 personnes ainsi de suite ainsi de suite ko fi gis ben nit bu ne wala ñaar nit bu am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw parce que ñoom ñi ñuy defal formation bu ñu paré ay relais la doon dañuy delluwaat former ñi dafa nekk. je m'appelle Ousmane Ndiaye je suis technicien lait en même temps adjoint à l'inspecteur départemental de l'élevage de Dakar. bon le ministère de l'élevage euh, a une mission régalienne qui est l'accompagnement de, groupements de producteurs. Et Safina est un groupement de producteurs. Ils ont contacté le ministère de l'Élevage à travers le secrétariat du ministère. Ils l'ont mis en rapport avec moi au niveau du département de Dakar. Et la mission est de former les dames sur la transformation du lait en yaourt et en fromage. Il y a d'autres types de formations qu'on doit faire dans l'avenir. Et tout ça, c'est dans le cadre de la souveraineté alimentaire, qui est le thème de, la journée nationale de l'élevage qui devrait être organisée à Kaulak cette année. On est sur la même lancée, sur la politique de l'État par rapport à la souveraineté alimentaire, pour que la population puisse, tout ce que l'on se nourrit, on le retrouve au niveau national. C'est un rôle non seulement économique, social d'abord, social parce qu'il appuie les dames à avoir de l'argent pour leur propre argent économique. Il joue un rôle important par rapport à facture laitière au niveau national. Parce que vous le savez-vous, le Sénégal importe des milliards des milliards par rapport au litre de lait en poudre. Si on forme les dames, c'est la transformation laitière. Au moins, on essaie de diminuer la facture laitière. Parce que l'État est en train de travailler sur ça, en amenant des métisses de vaches laitières pour qu'on puisse augmenter la production laitière. Une fois que l'on augmente la production laitière, ce qui suit, c'est la valorisation. Et la transformation est une continuité du travail du ministère de l'élevage. Maintenant, pour faire la transformation de ce lait-là, nous, on a besoin du lait créé. C'est du lait 100% lait de vache qu'on qu'on transforme en yaourt et en lait, mais ce n'est pas du lait importé, c'est l'idée qu'on a euh, produits ici au niveau national et que l'on valoriser au niveau national en utilisant des ferments lactiques pour avoir le yaourt et le fromage. On n'entend pas yaourt, c'est rien du tout, du lait qu'on a caillé, mais avec une acidité qui tourne entre 80 et 85 degrés dormique avec des ferments lactiques euh, que l'on appelle des mésophiles, euh, des micro-organismes qui tolèrent la chaleur. Maintenant, on aura une acidité qui tourne entre 85 et 80, et 85 degrés de, qui est différent maintenant du lait caillé, où on utilise euh, des ferments lactiques euh, qui ne tolèrent pas la chaleur, qui tournent entre 30 et 35 degrés, dont l'acidité tourne entre 80 et 90 degrés. 90 degrés à 95 degrés Le rôle du ferment, c'est des micro-organismes qui facilitent le caillage du lait. On t'a très bien déterminé. Parce que, le saviez-vous que l'industrie, quand il fabrique euh, le ferment, il nous, donne une courbe de progression pour le caillage du lait, qui est entre 4 euh, heures de temps et 6 heures de temps. En respectant la température de caillage, pour le lait caillé entre 30 et 35 degrés et pour le yaourt entre 40 et 45 degrés. Les ferments lactiques sont bien dosés on vous donne un sachet par rapport à une quantité de lait bien déterminée. Mais il n'y a pas de danger si on utilise tout le paquet. L'essentiel, si on utilise, on perd de l'argent. Par rapport au comprimé qui est bien dosé à des quantités bien qui peut entraîner des intoxications alimentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu sama mbokki qui yëpp yu fi nekk di la nuyu ku nekk ci turam ak santam rawatina madame Ban de connu, nuyu di nuyuwaale monsieur Ampachage man maa ngi tudd May Oudé Koli représentante groupe femme Dóor waar bon sama teewaay bi fii mun naa ne amal na ma tey solo amal na solo tam euh, sama mbokki jigéen yu fi nekk rawatina ci mbirum euh, euh, meew rawatina ñun ñu ngi sow bu ñuy xam ne ne moom la ñuy yëngu tey jii sama teewaay bi am na solo lool ndaxte li ma fi jàng musuma xam ne ne meew nii lañ koy defaree musuma xam ne ne meew euh, woyal bi nii lañ koy defaree mais tey am naa ci jàngat bu bëri boo xam ne ne su ma demee mun naa ci jàngal samay morom jigéen formation bi lu ma fi gën a marqué bëri na trop bu ma ci naree lim du ma fi jógee ndaxte lépp bépp produit bu ñu fi defar rek am na solo fromage bi am na solo lekkay bi am na solo yaawur bi am na solo tey jii sax bu ma buggee defar tey sama doom goûter mun naa jël tey sama sow sama lee defaral samay doom yaawur te loolu am na ci solo trop. asalaamaaleykum nuyu nañ ñëpp ziyaar nañ ñëpp man maa ngi jóge pikin mm, jóge ci euh, GIE bu ñuy wax ànd manko doon benn ma ñëw représenté leen fii voilà ci formation bi man Rama Dieye laa tudd madame Sarr initiative bi xëy na jëlaluma ko sama bopp. dama ko jël comme ni ko ñëpp waxee rek dañu ñëw représenté fi ma GIE ba nga xamante ni dañu nekk ay relais yoo xam ne gis nañ ne njariñ moo ngi ci pour nga ñëw yokk sa xam-xam ndax euh, am na lu bëri la nga xam ne daan nañ woyal xam nañ meew mais gis nañ ne ban ñëwee am nañ ci bagage ya nga xamante ni amuñu ko woon te yaakaar naa dañ ne chaque jour njariñ mooy lan suba soo xëyee nga am bind bu bees ci naka lépp lu mu mënti doon nga am ci looy teg sa loxo ndax dañ doon làmbaatu rek di woyal di yëngal mais tey xam nañ qualité bi ak quantité bi mesure yi lépp mën nañ ci dem te duñ ci làmbaatu te yaakaar naa boo bëggee liggéey mu am leneen lu mu retourné ñëw ci yow dangay teg lu wóor te tey formation bi loolu lañu ñu boo ñu waxee mën nañ la wax ci cadre bi yépp ci li ñu jàngal mën nañ la wax mesure yi niveau yi te amuñu ko woon kon loolu nekk na lu dolleekuwaat ci li nga xamante ni lu bees la ci suñu dund ñu war ko yóbbu lu ñuy xaar ci man mooy bu ma demee li nga xam ne jël naa ko fii ci liñ ma fi jàngal comme bagage lépp dama leen ko war a sottilaat sotti boobu mu war a nekkaat njariñu GIE bi ndax loolu moo tax ñu yónni ma fi ndax bu boobaa dinañ ci jariñu ñun ñëpp comme en tant que GIE ak femme loolu moo tax ñu ñëw fii sama mbokk femme yi ñu gën a góorlu rek ndax affaire bi yombul comme trois jours baye nga sa kër nga ñëw fi euh, euh, kon lu mu metti metti rek ñuy ñëw di jël affaire te wóor na amoo ci notion yaakaar naa nga toog ak technicien mu ni la la lii yamul ak nga toog ne man ndax ku daan wayal ak barki démb fan am na différence kon bu ñu déggee formation yi ñu impliqué ñu ci bul ñëw benn fan deuxième fan nga ni dafa sori wala dara ndax ñi ñi la defal formation bi dañu def sacrifice ba am ay financement jënd bagage yi ñëw defal la ko gratuite kon yow tam nga mën a jël sa temps mën a ñëw ak ñoom assister ko ba affaire bi jeex jox ko lépp lu mu laaj ndax njariñ bi kenn du la ci ëppale bu dul sa GIE yow en personne mën nga ko defal sa bopp mu jariñ la jariñ sa waa kër. Aïssata Thiam mbiɗa ardi groupement biyeteɗo mbour e gounas eyyi mbiɗa woni to e pikin cité sotiba eyyi mi addi kam ɗo hande noon e oɗo ñalawma ko weltade kadi mboɗo wawi wide mbiɗa welti ha mi wawa haalde vraiment kono noon ko teddugal fuurankoɓe ko teddugal haalpular en ko woni mo ceerno hamidou yaroban daña saabu ɗum ɗo min ɓooyi soynade ɗum min dañani min ɓooyi yidde dañde min téléji min dañani min ɓooyi yidde dañde radio ji min dañani hande min dañi radio e télé e wallirde rewɓe kadi liggade c'est important hande emin jikkoye amin no fewi saha noon kadi ko ƴiƴam fuutankagal dogata e amen somin keeɓi ɗum ɗo ko yettere allah min beltima no fewi ɗum mbawmi haalde e woni hen fandaram ko ardade rewɓe hono am hono rewɓe ɓe ko ganduɗa rewɓe jiiduɓe ɗemɗe ɗe jiida jiiduɗe ɗemɗe kono foof anni amen foof ko liggeeyo woni solo o saabu en mbi ko juuɗe ɗi coɗodirtane laaɓa par ce que eɓe paade am hannde mi waɗa maitrise ko addi kam ga ko komi nelaaɗo andi so nelaaɗo neɗɗo so nelaama ko teddi fawama e muɗum donc noon ko teddi ko pour mi waawa wadde ɗum dongal ngal mi rowto ɗum pour mi ko wadde suivre mi annda nelal ngal nelaami ngal mi yettinoyo e no nelirami ni mi adda mi haalanaɓe kamɓe nde ɓe mbawa dañci hen ɓamtare no jiirumi hen min hooram ni assalamu aleykum mbolomi ginnaw bañu santee yallah julli si yonantibi salallahu aleyhi wa sallam nuyno ñëpp ziar nañ ñëpp di dolli sant yàlla ndax eh, yàlla mi ñu fekkee ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim moo ñu may ba ñu egg fii tey di wax alhamdulilahi rabbil alamin eh, ñu ngi fiy dajee depuis barki démb di la 19 démb la vingt ak tey la 21 janvier 2024 li ñu tax a daje mooy eh, dimbali jigéen ñi ci formation formation mooy métier euh, dégg nañu li nga xamante ni moom la ñëpp wax di ko rafetlu te it mu nekk loo xamante ni lu am njëriñ la jëmale ko ci seen boor mooy ñoom jigéen ñi ndax euh, ne ko soxna si waxee léegi am ma may la ma jàngal la ni ñuy nappee moo gën te tey defe naa moom la ONG Safina def ginnaaw loolu ñoo ngi fii ak président ONG Safina mooy imam Hamidou Ban ñu koy tuddee Thierno Yoro Ban wala fi naan Thierno Hamidou Yoro Ban ah ñu daal di koy jébbal kàddu bi daal di am ay laaj yu ñu koy laaj mu jéem ñu yokk tuuti ci li jëm ci wàllu safina incha allah eh, Thierno Hamidou ñu ngi lay nuyu di la ziar di gis li nga xamante ni moom nga daal di defal jigéen ñi tey di la laaj en tant que président ONG nan nga dundee mbir mi tey bon gannaaw bu ma sant yàlla subhanahu wa taala julli sang bu tëdd bi mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di kontaante bu baax a baax a baax ci jéego bi ngeen def woote yomb na mais ñu wusi la moo gën a jafe woo nañu leen ci mbir mi ngeen wuy si wuy si bi gën rafet ndax boole ngeen ci cawarte boole ngeen ci kontante te def leen def leen ci seeni yitte te nun loolu moo taxoon jóg loolu nag duñ ci am dara lu dul mbégte ndax mbir soko ko def yalla ba jappale la ba nga def ko nga gis ci lu kawé sa njort loolu contente rek nga ci mëna am kon dundé mbir mi moy dundé contente ak dundé yaakar contente bi moy ni ngeen ñëwé ak ni ngeen àndi ak seen formateur bi ngeen déglu ko ngeen xol li muy def ngeen comprendre ci bu baax loolu mbégte rekk lañ ciy jële dundee yaakaar mooy su ngeen fi jógee li ngeen jot a xam ngeen bañ a koo def rek ci seeni tiroir déedéet na ngeen ko matérialiser ndax nit soo jàngee dara danga koy nafar mën ngeen ko tàmbali ci tuuti mooy ci seeni kër même bu dee benn kilo walla ñaari kilo ngeen def ko ba ngeen gën a koo miin ba ngeen gën a koo mokkal su ngeen ko defee bu baax nag ba ngeen miin ko mokkal ko soo boobaa ngeen yaatal ko su ngeen ko yaatalee ku ci war su kam nekk mun na ci am lu ne ndax liggéey loolu lay jëriñ mooy dangay liggéey ngir nga dund ci mais da ngay liggéey ngir nga dundal ci ñeneen su yàlla defee mu yaatu bu baax a baax a baax bu mu doon ay entreprise dana weesu seeni lox ndax da ngeen créer emploi da ngeen jël ay nit di leen jàppale ci mbir mi ñooñu dañ ci am seeni warsu loolu jaamu yàlla la wallahu fi auni al abdi ma dama al abdu fi auni axi yàlla du deñ di dimbal jaam fii jaam bi mu ngi dimbal jaamu moromam kon nag kaddu googu laa bëggoon tontu ci sa bi jërëjëf Thierno dégg nañ bu baax kàddu yi nga sànni te def naa tamit sama mbokk jigéen ñi dégg nañ ko euh, ginnaaw loolu gis nañu nga créé li nga xamante ni mooy ONG Safina te ngay om religieux mu mënoon laa bañ a fekk tamit mais da nga daal di créé ONG bi nga def ci ay branche yu branche ñu ciy dégg Safina FM ñu ciy dégg Safina TV TV di ci dégg daara El Hadj di ci dégg eh, yeneen ak yeneen GIE baa ngi fii tey nga ñëw nga indil ñu réseau Safina pour le développement réseau Safina pour le développement boobu da nga ko créé pour jigéen ñi rek wala da nga fa am leneen loo xamante ni mébét nga ko ci biir ak tamit ndax da ngay demee ci financement dañ lay financer wala da ngay demee ci financement propre. lépp lu ma ciy tontu yaakaar naa ñoo. xamul wante yéen yow mii laaj yaa ko gën a xam ndax bi ñu tàmbalee mbir mi yaa ci yaa ngi ci woon ci biir def na action yu bari action yooyu yëpp nañu ko limandoo fi euh, li tax nag ñu créé ONG bi boobu histoire bi dafa gudd wante dama xalaat rek nit ki soo dundee ci sa kaw suuf da nga war a marqué sa empreinte balaa nga fi jóge comme ni ma leen waxe woon démb fii bérébu jaar jàll la te yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ne imal li dunyaaka ka annaka xaalidun wa amal li axiratika ka annaka tamutu gadan na nga liggéeyal sa àddina bu mel na fii ngay sax te doo fi jóge mais bul fàtte sa alaaxira nanga nga liggéeyal sa alaaxira ba nga def ci sa xel ak sa xol ak sa xalaat léegi nga fi jóge kon nag équilibre la dangay liggéeyal ëllëg mais bul fàtte tey ndax ëllëg fii lañu koy amee loolu moo tax ñu créer ONG bi ñu def ci éducation éducation bi yaatu na créer nañ ci fii daara defal nañu fi alphabétisation lu tolloo ko ay junni junni jigéen depuis 98 ñu ngi ci mbir mi def nañu appui conseil au développement initiative à la base mooy jàppale ñi nga xam ne ñoo ji néew ji doole yi ñooñu su ngeen demoon côté jas du ñu ñu weddi ndax ku mel na pëpp ngeen ak li am na ay jigéen ñu bari macha allah depuis boobu ci xaalis bi ñu joleen joxoon nañu ko wëlbatiku ñu di ci liggéey ba léegi xaalis bi mu ngi seen loxo saa yi ma demee foofu wala yéen ngeen dem foofu dañuy wax ne da ngeen ñëw jël seen xaalis wala ñu ne dañoo ñëw nemmeeku li ñu leen joxoon mbax ndax mu ngi fi ba léegi parce que bi ñu leen joxee xaalis bi man dama ko génne ci sama poche jox leen ngir jëmm yàlla mais nag su ma leen waxee ne jox naa leen su boobaa njaayeen yi ak njoobeen yi ñoom dañu koy def ci seeni poche noppi mais soo ma waxee dama leen lebal xaalis bi na ngeen ki liggéey seeni biir loolu dañu ci bàyyi xel parce que dañuy wax ne toujours damay ñëw laaj sama bor li ma leen di joxoon loolu moo tax alhamdulilah rabbil alamin bi ñu mujjee foofu jigéen ñu bari nee nañu ci la ñuy dépensé ndax def nañ ci ay taabal ci marché yi ñu ngi ci dépensé am na ñi nga xam ne seen fourniture yi élèves doom yi ci lañ ñu koy jënd ak lu baree baree bare ñu wax ko loolu nag sant yàlla la ci wàllu boobu créé nañu foofu ay biodiversité ak réew boisement jëmbat nañu foofu lu tollook ñaar fukki junni garab ñaar fukki junni garab walla lu ko weesu am na ay dëkk yi nga xam ne su ndox bii ñëwoon daanaka dëkk yi dootul nekk ci jàmm mais ñu def foofu cordon pierreux ñu def ay xeer xeer bi di di baaree euh, ndox mi ba suuf ñëw foofu yépp nekkante tey ji dëkkuwaay boobu nag côté jas kent tudduwul jas mais bi ñu demee foofu yàlla ak barke Cheikh Umar radiyallahu taala bi nga xam ne moom mooy suñu niital suñu yoon li ñu leen waxoon foofu yépp yàlla def na ko def nañu école communautaire de base école communautaire de base mooy ay xale ñi nga xam ne jàng nañu po seen jàng tolloo ji feneen amuñu diplôme pour ñu jàll daanaka ñu daq ci seen i place seen école ñooñu ñu dajale leen du defar leen ay classe jàngal leen defal leen formation pour ñoom tamit ñu mën a dund dund bu rafet ci seeni àddina def nañu ko sangalkam ak yu baree bare macha allah def nañu alphabétisation jigéen yi comme ni ma ko waxoon pour ñu mun a xayma ñu suñuy jaay jënd pour ñu xam lan la ñuy jaay ak lan la ñuy jënd mais ñu boole ci tamit ki nga xam ne nekk nga jullit bëgg nga sa diine ñu bind jàngal la sa diine nu mu gën a oyofee ñu bindal la saar faatiha ak saar ak yenn ponk yi nga xam ne ne jullit bi ala kulli xaal foofu nga xam ko pour nga sa sa diine mën a gën a mot loolu alhamdulilah def nañu ko fii fu ñu toog ci bil boobu ci lancé boobu la ñu ko lancé ñu créer fii daara alquranul karim ñu dere créé fii franco arab soo gisee sa tableau bi sax da ngay xam ne fii classe la li am na ñu bare bare bare tey ñu ngi ci bitim réew fii la ñu génne am na ñi nga xam ne ñu ngi ci université fii la ñu génne am na ñi nga xam ne ñu ngi ci collège bi fii la ñu génne te daara bi nekkoon na depuis 98 boo ci mujjanteel bi man maa doon fay lépp amul benn taalibe wala benn élève bu doon fay maay fay enseignant yi maay jox fournitures yi macha allah ku xooloon télévision ci jamono yële yu yàgg yi tey tey jii ñu bari ñu ngi ci roy mais ñun ñoo ko commencé parce que su fekkente ne feetu école tubaab yi ñëw na ñu ngi leen di jox cadeau mais daara alquran amul cadeau franco arab amul cadeau man ma créer fi ci tamxarit ma indi ay cadeau yu baree baree baree bare ma woolu tolloo ko téeméeri daara ma wax daara bu ne na nga jël juróomi élève compétent boobu nag pour encourager élèves ñi jàng foofu ma jox leen cadeau jox nañu fi vélo dëkk yi nga xam ne dañoo sori amuñu jumtukaay ku mel na oto wala saret ñu jox daara boobu velo su fekkente ne am na lu ñu bugg a jënd ñu dem ci vélo bi pour ñu seen jàng bañ a jox nañu leen ay ordinateur yu bari fii ba Thiès ak feneen ak feneen ñu jox leen ordinateur pour ñu moderniser seen i daara jox nañu fi ay yére yu baree baree bare ci ci école yi jox nañu fi ay fournitures yu baree baree bare macha allah loolu yëpp matérialisation bi mu ngi fi dox nañ tamit don des médicament dans les hôpitaux fii ci Grand Yoff ak feneen ak feneen ma jënd ay garab yu baree baree baree bare ci sama poche ma jàppale ñi nga xam ne dañoo dem foofu amuñu ordonnance suñu leen bindalee yenn garab yi mënuñu ko jënd ñu teg foofu ñu médecin yi joxe ko ngi fii sabilillah def nañu fii ñun ñoo njëkkee def consultation médicale gratuite euh, yal na yàlla yërëm ministre Issa Mbaye Samb ñun ñoo ko tàmbali woon fii boobu fii barak lañ barak la woon alhamdulilah rabbil alamin ba tey tey ji foo dem ñu ne consultation médicale gratuite consultation médicale boobu sax xamuñu lan mooy consultation médicale gratuite man maa ko tàmbali fii ci dëkk bi daara moderne bi ñuy dégg bi ñuy wax ni fii la ko sosoo parce que fii ñu ngi doon wax ci trilinguisme dans les daara nga jàng alquran jàng arab jàng français mais am même temps jàngale langue nationale même samba si mii di filmer ci daara boobu la génne ndax ñoom ñoo doon def fi ay ay discours arabe discours français discours pulaar discours wolof discours anglais macha allah boo ministère de l'éducation jëloon fii day doon fii jël ay références ñoom Mamadou baas ñu ngi doon ñëw fii macha allah ñoo yoroon affaire daara yi loolu yëpp defuñu ko ngir ñu am tur walla ngir ñu am ay wa daraja wala ngir ñu am mbooloo loolu soxluwuñu ko non dañu koy def rek ngir jaamu yàlla pour am ci ngërëmal yàlla loolu moo tax ñu jóg ba tey tey jii dañu ci nekk suñu amoon fukki dërëm ñu ngi ñaan yàlla juróom-ñeent yi nañu ko def ci fii sabilillahi benn dërëm bi nañu ko jëfandikoo ñun ak suñu njaboot su fekkente ne mënuñu juróom-ñeent yi na juróom yi moom na dem ci fi sabilillah te sans arrière pensée ni euh, euh, attendre de de retombées dañu koy def xalaatuñu ci dara te xalaatuñu dara pour mu def ñu ñu jox ñu du nguur gi lañ ci yaakaar du ONG yeneen yi lañu ci yaakaar du bitim réew lañu ci yaakaar déedéet lépp ci yàlla lañu koy yaakaar fii fii nii maa tabax amul benn dërëm bu génn bitim réew ñëw fii rajo bi macha allah noonu la ñëwee ndax dañu doon xalaat suñu defee daara fu ñuy jàngi alquran nañu def jàkka fu ñuy julle mais nañu def bërëb fu ñuy waaraate pour commu pour euh, message islam bi gën a yaatu loolu moo chaîne boobu la ñu ko defoon ndax loo xalaat rek da koy xa looy def rek da nga koy xalaat alhamdulilah rabbil alamin lii bi ñu ko xalaatee nañu def formation bi c'est la première fois ñu def ko mais incha allah dañu koy defaat defaat avec euh, monsieur Ndiaye ak seeni kilifa suñu amee yeneen encore formation ku mel ni yarub ganaar yarub xar yarub nag embouche bovine culture ak leneen ak leneen dinañ leen di woo wala woo ñeneen ñoom tamit ñu ñëw bénéfice woo ci pour ñoom tamit ñu dem mun a jàppale seen bopp fi ñu koy jeexalee rek mooy ñun xaaruñu ci dara xaar ñu ci jërëjëf xaaruñu ci dara lu dul am ngërëmal yàlla ñoom ay si dara bi ñu ngi fi seen daara bi seen daayira bi fale caaroy une chose Pikine ëpp na ñaar fukki at ñu ngi leen doon jàppale foofu macha allah ñoom seen bopp ñu organiser seen biir di def commerce seen biir xam fu mu toll tey tey ji wante doxoon na ba kenn ku ne Soi jënd dara ci ñoom nga doon jënd ñu ay saabu ak ay leneen ak leneen ak leneen ak ki magie ak lu demee noonu yooyu yëpp ñoom ñoo ko doon def seen i euh, mbootaay boobu foofu macha allah waaw loolu moo tax soo xoolee suñu slogan mooy lutter contre la pauvreté pour lutter contre la pauvreté c'est de créer des outils de développement soo bëggee xeex ndóol mooy ñàkk da ngay créer nit ki créer nit ki pour mu jëfandiku si demal voilà merci mbokki suivre Safina TV vous avez vu on a bien vraiment posé certaines questions surtout l'initiatrice de la formation surtout la présidente mais aussi le formateur et certains membres les participantes. Donc, comme je vous avais dit tantôt, c'était un réseau pour, pour Safina, Réseau Safina pour le développement. Donc, euh, ils ont réuni ici Taï, rien que pour faire la formation de transformation laitière, mais aussi il y a des autres formations à l'intérieur. Mais je vois qu'aujourd'hui, dimanche 21 janvier, donc restez encore suivre Safina TV, le sens et des couleurs, votre télévision, notre télévision, la religion et la culture au service du développement.